mom bi affaire bi amé ñu né pat pataral xaal ba policier yi su jóg moom tamit mu taxaw di di di di mime mais mime lo xamni c'est évident xalé yaa ngi dee nga taxaw l'information. ko mime mais ben, ben, mais y a un problème ban information la wara démentir Ben, on est en train de politiser un dossier il faut faire taire les inter les les intérêts irrationnels et leur instrumentalisation politique Fatima yow mën ngaa miim ni xale yi duñ dee te bis bu nekk fii Sénégal bërki dem Saint-Louis koor yaa ngi génn ba léegi démb si suba intercepté ay bateau ci canari. Canaries nga bëgg a miim faut arrêter quand même. Il faut qu'on respecte hein, le deuil de ces gens-là qui souffrent. Qu'on respecte les familles aujourd'hui dans le désarroi. xam nga que ñu xaar ministère même même su dul dëgg sax qu'il fasse semblant que l'État fasse semblant de de de taxaw ay doomam dalal xelu nit ñi jël na acte ñun kat ñu ngi top mbir mi ñu hein dalal xelu nit ñi ubbi une information judiciaire tek une cellule de crise un numéro vert pour les familles yi nga xamni dire, bu ñu jaaxlee ñoom duñ dem ci état bi man la wo man awma ben moyen bu état jox amul ben moyen buñ ma jox fenn ci Adina. c'est une organisation européenne man ma dis ko ñu ñëw fi Afrique il faut relancer la gestion des flux migratoires parce que nous avons adina man ma ñëk wax droit d'asile il faut des réformes du droit d'asile xam nga man kon européens duñ ma jappalé ma ñëw fi Afrique foog ñu yéen a may jàppale fii laa fi lañ ma dugalee prison fi lañ ma njëkk a té ñukoy ñu koy man dëkk bi ma dëkk ma sant say dëkk ci dëkk bi au moment où des gens m'appellent Boubacar ay université yu gëna mag ci adina bi ñëwal animer fi conférence sur cette thématique là Radio yi gëna mag ci adina ak télévision yi li lañ nga ci xalaat fofu kenn fo xolof yeen yi a ma woo ñu wax olof mhm. kenn fo xolof dafa am benn année Maroc daf ma wo le gouvernement marocain dugal ma avion yobuma bima bi ma Casablanca ma gis ñu tegal ma tapis rouge garde corps chauffeur ak oto man leen est-ce que jumu leen ñu ne ma déedéet juum nu yow la ñuy xaar xam nga man loolu daf maa bett xam nga Sénégal moom dafa lu ma loolu kon nii la li ñu wax mooy nañu yërëm doomu aadama yi nañu yërëm ndaw ñi parce que doomu aadama dafa fort Fatima yow war ngaa mën a dund war ngaa mën a lekk war ngaa mën a naan li dul yoon doomu diw di lekk di naan di def lu ko neex yow mënoo dund loolu moo tax ñu ne le Sénégal puisque c'est une porte d'influence le Sénégal est un laboratoire de mixité et de migration. 42% des migrations intra-africaines sont dirigées vers l'Afrique et le Sénégal attire par sa stabilité. Quand le Sénégal doit mener ce leadership-là, le Sénégal convoquait rapidement une conférence africaine pour redonner de l'espoir à cette jeunesse. Rapidement une conférence africaine pour une harmonisation des positions migratoires. Nous avons Afrique, Algérie, si désert bi ñaata xalé la ay jaan mat si désert bi ñu dé Tunisie ñëw di daf lu ko neex Sénégal récemment expliqué ay ay ay ay ay kenn xamul bërki démb tamit amna na dëkk bu donc li moy Afrique ñun ñun notre problème c'est nous-mêmes ñun bëggante wuñu wuñu suñu bop ku nekk yaangi xex sa morom les Européens s'organisent l'Europe des 27 ñun amul lool tay waron nañu am une harmonisation de ces postures je préconise les assises de la migration transversale c'est l'un des éléments essentiels de la géopolitique mondiale au moment où la banque mondiale dafa pour des enjeux géopolitiques wax pandémie man a wax pandémie le 3 mars la pandémie est là sur le coronavirus il y a les thématiques migration et environnement la dégradation de l'environnement dafay indi fait pousser à la migration forcée L'UP migration la migration et sécurité hmm? circulation des armes trafic des armes trafic de médicaments trafic d'êtres humains trafic d'organes Qu'est-ce que nous nous transférons migration et l'enseignement supérieur la relation euh, en 2000 l'UNESCO avait euh, avait estimé le flux migratoire estudiantin à 1,7 ce chiffre devait augmenter chaque année de 7 pour profiter à la France la relation exclusive que la France avait avec les pays francophones devait ñëw Sénégal di parce qu'avec la guerre à mon Côte d'Ivoire les écoles d'enseignement supérieur dañu délocaliser au Sénégal le Sénégal est un laboratoire de mixité et de migration Sénégal su organisé la migration kon xaalis yëpp day dugg si kon migration ñëwaat na moo tax gisoo France ñoom dañoo yeewu puisque africains yi gëmuñu seen bopp foog il faut ñu dem jàng ji France daaw bi France amee un déficit budgétaire de 9 milliards le Quai d'Orsay bi mu ak non on déclenche la diplomatie économique on a tout de suite besoin de 4,5 milliards ci la ambassadeur bi génnee naan ñu le visa ñëw leen visa yaa ngi fi mm-hmm. ngeen ñëw ñu lekk seen xaalis dugalaat gis nga ñoon ñun yeewu ñun yeewuñu kon ñun bi ñu Sénégal di proposer une véritable politique migratoire lii moo taxoon ñuy wax man la ma Europe dafal Afrique dafalu ma ko mais tey dama dama ñëw sax di songu européens yi ci yenn concept sur la migration parce que ñun ñun nous daf ñu defal dañoo bëri casquette man dama bëri casquette bi ma 20 vingt ans la génn Sénégal je suis aussi citoyen européen moo tax bi ñu may téye dañu def erreur bi may laaj naan xaalis bi ñu dugal je parlais de ma ci carquette. je parlais en tant que président d'une organisation européenne je parlais en tant que citoyen européen parce que khalif bob sama c'est l'agent du contribuable européen et je parlais en tant que chercheur dans ma mission académique Et l'histoire nous donne raison xale yaa ngi dee ci géej gi ñoom ñu ne dugal nañu xaalis ma ne xaalis boobu nañ ko leeral ñu jël ma ni dañ may dugal ci ay prison bëgguma sonal tey l'histoire nous donne raison moo tax gis nga bi nous ci man lii lañ c'est mort inutile et la question revient encore ñun fi joxone xaalis à travers des programmes pour la jeunesse nañu taw taxaw c'est l'ère du bilan en Afrique il y a pas cette culture du bilan gis nga app liguey pour mu meuna efficace mais da fay am bilan ak évaluation sinon on on n'évolue pas en efficacité yow Fatima mënuma laa jox sama milliards ni la dafal ma ci li te do ma rendre compte c'est le problème que nous avons xaalis yooyu fu mu dugg tey ñun ko joxone tay am nañu problème parce que li am ni tay li mo war a na donc problématique yëpp mo ñëwaat Fatima Sénégal de Dougou dans une nouvelle ère géopolitique avec la découverte des yeux. C'est important. L'exploitation du gaz et du pétrole. Nous ci faire attention il y aura un dumping migratoire au Sénégal nit ñi dañuy ñëw xam nga li tax fu pétrole le gaz am nit de dañuy ñëw a des études sociographiques ont démontré que les deux tiers des conflits qui ont bi ci dëkk l'exemple du Nigeria avec le Boko Haram les pays arabes ce que le Sénégal war a légiférer protéger l'exploitation du gaz et du pétrole il indi ay déversement yoo Il faut disparaître l'eau, l'écosystème et de la biodiversité gisoo nappkat di wax ni yenn sur l'environnement C'est torché de gaz qui se dégage. c'est du dioxyde de carbone c'est du CO2 dans 10 ans zone y a ay maladies respiratoires la ñu donc il faut protéger ces populations donc dossier migratoire nous na moo nak nag nañu def attention mhm, mhm. dëkk mini euh, président bi daf ñoo déglu ñoo déglu mais kuy jëlaat Sénégal na dindi le dossier migratoire du ministère des affaires étrangères la diplomatie étatique est trop lourde Si on travaille de façon souterraine dans un état de droit on communique L'État devrait pouvoir faire des points de presse pas ay communiquer wax li xew lool moy respecter sa askan lool moy état de droit il faut créer dans les perspectives de solution un ministère plein chargé des migrations internes Sénégal de l'extérieur mon sens lan Sénégal de l'extérieur Sénégal de l'extérieur ne prend pas le dossier dans sa diversité sa complexité et sa transversalité ah. ou bien une agence autonome reliée directement à la présidence Qu'est-ce du ko qui parle de migration internationale Moi, régler les problèmes sécuritaires Moi, régler les problèmes environnementaux Moi, régler les problèmes d'enseignement Moi, régler les problèmes de commerce euh, international Moi, régler les problèmes de santé et de pandémie voilà les perspectives de solution Il y a des qui sont appliquer nous réduire à des proportions tolérables la diplomatie étatique certes est très lourde donc euh, la responsabilité est partagée Sans qu'il y ait un la responsabilité euh, sociale euh, pression sociale bi pression économique bi mais néanmoins la responsabilité bi nga xamante ne moo gën a mag jàppoon ni euh, c' est l' état du Sénégal waroon naa gën a taxaw aussi doomam yi nga xamante ne ñooy dem bitim réew. ngir ñëw mais responsabilité bi gi gën a am ñoom la par la wax naa ko la théorie néoclassique l' état la la la l' état parce que dëkk bu mel ni Sénégal may rappelé ni le mission le migrant sénégalais il est économique. Mhm. loolu tamit day baax ma leeral ko tuuti mooy ki nga xam ni ndóol moo ko tax jox xale yaa ngi màbb parce que événement yi amone fi Sénégal ñu wone dëkk bi di lakk ci adina bi yëpp ñom dañu fogg ni loolu Sénégal dafa nekk en guerre ba bu ñu eggee moo ñëpp di dem pour ñu am droit d'asile dañu nax seen bop le Sénégal le migrant sénégalais mënul am droit d'asile il n'est pas prévu par la convention de Genève de 1951 donc il faut que tamit ñu yee ci loolu il faut ñu sensibiliser ci loolu sénégalais mënul am droit d'asile c'est un migrant économique motax même nous dans les perspectives de solution j'ai parlé des réformes du droit d'asile Maintenant, mako mais légui Europe sax mu ngi il faut des réformes du droit mais il faut koy wax du dëgg ci parce que nous nous faisons des pressions sur le Parlement européen mm-hmm. sur la Cour européenne des droits de l'homme et sur beaucoup de facteurs mais dañ ci amul jappalé mais du tax ñu arrêté mais tay ji comme nous nga ko il faut que état du Sénégal mu xoolaat mom waru galam ci ay doomam c'est li li ko war ci ay il moy taxaw len xey ndaw ci mais y a bien des secteurs qu'on peut exploiter pour régler les problèmes de l'employabilité des jeunes Il y a le secteur agricole a des secteurs qui sont là yo y dang beaucoup beaucoup koy dang koy boko ci ñu dans une démarche inclusive waxtaan ci mais war nañu trouver solution il faut des assises ñu tok waxtaan ci waxtaan de la de la discussion jaillit la lumière bu ñëpp waxé saafara am ouais mais c'est mais ben suñ ko daful tamit ah mais assise bi mo indi waxtaan ci waxtaan la solution du jógee maintenant c'est c'est à l'État de prendre ses responsables man mënuma moko organiser man li ma mën émettre des idées maintenant c'est à l'État nak moy tok ba si àgg xam kat li ngeen wax ni kat moy deug mais état bi nga xamantene demande démentir na information bi est-ce que boobu. état dina voilà ben, mais absolument donc vous comprendrez que tay